بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi seetaan seen chaîne bii di Naby TV 92 officiel ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara di dellu si waat ci seen émission bi ñu tuddee jàngat ci lislaam euh, jàngat ci lislaam émission la bopp euh, Naby TV dina leen ko andil semaine bu nekk benn yoon tey jii nag euh, mu nekk suñu émission bu njëkk boo xam ne ci la ñu dalal gan ci émission bi xam ngeen miinoon nañu dañu daan ñëw rek def euh, point indi benn tomb jàngat ko euh, dellu tey nag c'est la première fois jàngat ci lislaam am gan gan gu rëy nag di sunu kilifa di suñu sëriñ di Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si di ku ñu xam ci ëttu xam-xam bokk ci njabootu Cheikhul Hadj Malick waaye itam nag di koo xam ne donga daara yu bëri ci moom la ñuy nampee xam-xam ba ñu bëggoon wuti ca mag ñett jotuñu ci ñoom wax dëgg yàlla mi ngi ciy dimbali ay jaamu yàlla yu bare bare moo tax tey ñu dem jëli ji ko ne ko nag euh, am na ay tomba yu ñu bëgg a waxtaane yoo xam ne dañ ci soxla ay leeral ci bopp jullit ñi te mi ngi aju ci yonent bi mi ngi aju ci alquran kon mbokk yi balaa may gën a sori dama leen di bàyyi ak invité bi rek Euh, mu nuyoo ak yéen ñu door a dugg ci émission bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la wax bismillah ci Nabi TV 92 salaamaaleykum wa rahmatullah. taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, gannaaw ba ñu sant yàlla. julli ji sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam. ñu nuyu mboolem ñuy déglu. ci Naby TV. 92 92. di ñaan yàlla. Uh-huh. di la nuyu yow tamit. Uh-huh. sëñ uh-huh. Babacar. Sylla al imaam Babacar Sylla. ñu lay nuyu di la ñaanal yàlla yal na yàlla taxaw la. te ñu bokk ko. ci barke bi yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam mi xam ne. moom la yàlla yónni. moom la yàlla jox mission tamit. pour yonent bi sallallahu alayhi yàlla yónni nabi gu nag nga xam ne ci moom lañ tuddee télé bi. Mm-hmm. mooy ku ñuy solo. parce que ñaari piri nag la am. fekkee nabawa. Mm-hmm. day firi tund. tund tund ni mu suuf sëpp. nga mm. sayyidil wujuudi tiimee nit ñëpp. naba a. nabi di mm-hmm. moom rek la yàlla di waxal. keneen ku dul yonent yàlla waxut ak benn mbindeef la yàlla sàkk ci kaw suuf yónni ko ci xeet mhm. ko ci xeet yi yëpp mhm. kenn rek la mhm. yonent yi yonent yi jaar yëpp dafa am seen yonent dafa am fu mu nekk ñëpp hmm. wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas kenn génn ci nit ak jinne yëpp yàlla dafa yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nabi boobu yal nañu yàlla may tippaloo suñu bëti xol yi ba nu xam mooy kan doon dina néewul xam doon dina bu ñu koo xam mm-hmm. di ñaan yàlla yal nañu yàlla defal daal jàmm amiin ba nga xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf euh, bokkoon na ci li ñu doon euh, junjub nuyoo bi rek nuyoo bi rek daf ci jàngale xam-xam bu sew boo xam ne fa tabarakallah ci diggante turu télévision bi muy Nabi TV ci boppam ak baatu nabawa euh, ak euh, nabaa ak nabawa macha allah sëriñ yal yàlla fay la yiw sëriñ <coughs> Cheikh kooku nga tudd léegi moom lañu bëgg a waxtaanee dafa am lu xew ci àddina mën na am sax njëkkul waaye léegi fi àddina bi toll ci ay moye ci ay jumtukaay yu xarañ yoo xam ne loo def fii léegi mu feeñ ci àddina bi yépp loolu dafa tax am lu fës loo xam ne tey àddina mën nga wax ne àddina wërngal këpp li ñuy waxtaane mooy caricature yi ñuy def ci yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam su ma ko doon tekki ci wolof ma ne saboote yi nga xam ne moom la tubaab yi di jël di def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy danañ koy jël di ko jéem a dessin di ko jéem a dessin di ko rëddal ay jëmm yoo xam ne jëmm yu ëpp tudd la ci làmmiñ maanaam orma ak teggiin mayewul sax ñuy jéem a nataal di wax ne ñoom nii lañ ko nataalee ndax nataal yu ñaaw te ñàkk teggiin léegi nag loolu bi mu amee dafa yëngal àddina parce que ña defoon dañ leen a rey ña leen reyoon tubaab yi reyaat leen ñoom tamit affaire bi nekk coow lu rëy fi mu nekk nii mi ngi ci àddina yépp France daanaka mi ngi def face monde islamique réew ya ca gëm yàlla yu bëri ñu ngay yëngatu ña ngi ko def face loolu nekk actualité bu yaatu boo xam ne àddina yépp a ngi koy coow fi ñu toll nii léegi nag mu am ci nag ñu mel ni man ñoo xam ne xamaguñu li xew wax dëgg yàlla que ñoom jàpp nañ ne lii dessin la rek te dessin boobu laalul yonent bi kon affaire bi amul benn solo ñoom joxuñu ko benn importance est-ce que am na solo ñu ciy coow mbaa leneen léegi nag ñu bëggoon a xam lan la l'islam jàpp ni lii saboote la ci yonent bi caricature maanaam jël yonent dessin kaag yooyu est-ce que loolu nekk na lu am solo ci diine wala déet loolu mooy point bu njëkk bi. alhamdulilah. Mhm. imaam ñu ngi lay rafetlu bu baax ci laaj bu am solo bi nga laaj. Mhm. xam nga réer ba réer jeex. Mhm. mooy nga bëgg desin dessin xam ne yow ko dégg bët sax. ah loolu dëgg la. Hmm? loolu dëgg la. xam loolu xel na mu woo. déedéet gisuñu ko de. loolu du xam ne xel na mu woo. beneen bi. sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk si ay jikkoom. Hmm. ay taxisam ay jagleem. Hmm. yonent bi kenn amul droit di ko melal ci dara. maanaam man ñeemoo kenn ñeemoo te wax na sax yonent bi moom diw ñoo niroo. waaw hmm? wees na foofu waaw léegi nag comme li wax li nga wax li xew hmm. mooy benn waaye bu jël ay bindukaayam di bind ne kii mooy yeneen tuddee ko ko waaw kooku rawana lim def ŋàññi la mais du dessin hmm. parce que melokaan yu suufee la ko jox. waaw dama ma ne. la mu def. du dessin ŋàññi la. ŋàññi la parce que lim dessin ak lim dessin bokkuñu. waaw loolu dëgg la bokk li ngay dessin ki ngay dessin ak li ngay dessin dana a niroo. dëgg kon moom dessin wu moom dafa ñëw pour ŋaññi. bi nag mu jàll ko ci biig. Mhm. ak la may bind. Mhm. buñ ko tuddee ay dessin dessin amul. dessin da ngay dessin Cheikh soo ko ku xool ni xam ne kii. Mhm. kii nga dessin nii ak kii benn la. waaw dëgg la waaw loolu moom léeg-léeg nga gis dessin kat bu dessin nit mu nuroog moom. jeex na. léegi nag amul. waaw dëgg la. kon ŋaññi la. Hmm. saboote la. Hmm. wane na li ngeen topp du dara. effectivement ki ngeen topp jëmul fenn. loolu sax lañ ci jublu. loolu lañ ci jublu loolu rek mooy wax ji. ay dessin ay caricature yëpp ay wax maanaam ñoom liñ jublu ci. ni hmm. tax nit ñi dëgg man ku yonent bi sallallahu alayhi wa la lu tax nit ñi topp yonent bi moo leen jaaxal. léegi nag nit. dafa am loo xam ne ci soo koy wax nii. du ko xam xamu tubaab. su bëggee indi robe gàtt. da ngay waaw day romb ci miir bi gis ay rob doo xam ni la bisay ñëw rek mu mu mu yawal benn tubaab mu sol rob bu gàtt di la romb ah, lii laa doon gis defe naa gis nga mhm. parce que yaa ngi commencé di ko def sa xel mhm. léegi yonent bi sallallahu alayhi wa nag borom xam-xam yi dañoo dajee wax ne mhm. soo demee ci shifa bu qaadi iyaad nga xam ne téere bu am solo la ci siira sukkeeri way na ko def ko ñeenti téeméeri ñeenti junni bayit hmm? waaw ñeenti junni yu teg ci ay abiyat la ko way allahu akbar su koy da ko way bokk na ci téere yi Seex Siraaj Maalik sukkandiku bi liggéey xilaas hmm? Hmm. dañuy wax ne borom xam-xam yi dañuy wax ne mbooleem borom xam-xam yi dajee nañ ne képp ku ŋàññi moo tax bul wax dessin rek déedéet képp loolu ŋàññi la ŋàññi la képp ku ŋàññi yonent bi ŋàññi nag dafa bëri ay façon nit ki da nga ko ŋàññi wax mu dégg da nga ko ŋàññi melal ko neneen nu melul hmm. xeetu ŋàññi képp ku ŋàññi yonent bi hmm. wala nga aj moom hmm. alxaq bihi naqsan lépp loo xam ne day wàññi day niru ne dafay yaa ngi wàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraja fi nafsihi ci jëmmi yonent bi yaa ngi aj ci moom loo xam ne day wàññi yonent bi aw nasabihi wala tax ci askanam parce que askan wi mbokk moo gën ci askan yi. waaw même askan wi yonent bi kenn amul droit di fa dugal loo xam ne day wàññi askan wi. Hmm? déedéet. fal ardu xayru naasin. waaw summa xayruhum wa xuraychuhum. wa xuraychuhum. wa huwa fiihim xayru xayrihim. gis nga loolu xadis la. dëgg la. Hmm. loolu xadis la suyuti waaye mi ngi ci téere suyuti bi hmm. risala hmm. soo risala si suyuti ko fekk du wax bu El Hadj Malick karéel boppam d'accord doo fekk ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa mu way ko al-urbu xayru unaasin summa xayruhum bi indi te mooy yàlla wàccee ko ko te mooy diine ku ko oyofal yaa ngi ngañ yonent bi ñoom dañuy ngañ lislaam wala benn ci jikko yoo xam ne ci jikko yu suufe nga askan lay ko yonent yooyu it am na yooyu sama làmmiñ ñu ko ñeme wala tudd rek moo tax la yenn ci jikko yi mm-hmm. yoo xam ne yu suufe la mm-hmm. wala mel na nga ne yonent dafa nangamoon mm-hmm. ngi ŋaññ yonent tax mu ne wala nga jikko nga askan ko jikko boo xam ne ci bokkut ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw arada bihi shay'an wala nga teg ci mu deram la lenn li nga laaj nag mm-hmm. ci caricature nag mi ngi nii waaw lii la léegi aw shabbahu mm-hmm. bi shay'in ala tariqi sad wala nga nirule yonent bi dara loo xam ne ji ba koy nirule da nga cee yoonu ŋàññi nga tax mu nga nirule ko effectivement parce que taxaw di caricature mm-hmm. la muy def ngañ yonent bi la si jublu. la melal na yonent bi noonu la mel loolu ngañ la. macha allah léegi nag doon dem nag. voilà lii nag laa bëggoon a xam. mooy dañu bëggoon rek ñu xam lan mooy ngañ gi d'abord. lan mooy saboote gi lan mooy tuutal gi. ndax dafa am ñoo xam ne dañu jàppoon ne loolu bokkul ci tuutal ko. kon léegi leer na ci sunu bopp ne mm-hmm. lii ŋàññ yonent la mm-hmm. lii saboote yonent la lii jéem koo doyadal la ak diineem ba pare di ko tappal ay melokaan yoo xam ne mm-hmm. ba pare dañ koy bind bàyyi fii loolu mooy li garaaw après yeneen génération yi ñëw di ko jàngaat bon léegi oustaz loolu li ma la wax ni yëpp nee na fa ah. huwa saabun foog fal xukmu fii xukmu saab atte ah. bi lay atte lii yëpp ku ko def atte ah. ŋàññ lan lay teg macha c'est clair lii rek moo nekkoon laaj bi nag kon léegi leer na ne caricature saaga yonent la sallallahu alayhi wa sallam saaga la ko saaga bi ku mébét ci moom lor ko hmm. mébét rek laa nga xalaat lor ko dafa am atte yu war ci yow jërëjëf euh, jazakallahu xayran léegi damay ñëw daal di euh, ñëw directement sax ci atte yi bàyyil ma ñëw ci atte yi léegi bëgg nañu xam itam ki nga xam ne def na lu mel nii ci yonent bi sallallahu alayhi ndax lislaam programme ne ay sanction yuñ teg ci kawam ay àtte wala kooku dañ naan rek bàyyi leen kooku yàlla yàlla dina ko duma wala am na ay àtte yu lislaam teg ne yii nga lim léegi ku ko def lan mooy euh, nu mu tuddati lan mooy àtteem ci diine <coughs> sallallahu alayhi wa sallam daal hmm. li borom xam yëpp dajee hmm. dafa am yoo xam la am yoo xam ne ijma hmm. jëli yi mooy àtte ci sharia alxuraan li mu wax hmm. sunna xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw wax ko lu fóori xeet bi dajee ñëw wax ko hmm. ak loo xam ne dañ koo xiyaas hmm. yii mooy atte ci sharia li borom xam-xam yi nag dajee wax ne képp ku ŋàññi yonent bi moo xam yow mi koy ŋàññi booba bi nga koy ŋàññi jullit nga wala yéeféer nga dafa am koo xam ne dafa nekk ci biir lislaam ba pare waaw ki ŋàññi am na am na Mhm. lan mooy atteem. effectivement ak koo xam ne ci bokku ci lislaam bu bëri nga ñi yonent bi. effectivement am na. lan mooy seen atte ñoom ñaar. mu mhm. tax mu ne yajibu sharaan qatluhu sharia dafa daganal ci ñoom. dafay waral ci ñoom. Mhm. ñu rey leen. yii ma la wax nii ci gannaaw képp ku ko def yonent bi dañ rey. allahu akbar. yonent bi mbubb mii la daan sol képp. nga xool yére bi xam ne yonent bi moo ko moom. Hmm. nga xotti yére bi dañ la war a rey. allahu akbar. parce que yaa ngi la ci jublu mooy yaa ngi ngañ yonent bi. effectivement. képp ñu ne yonent bi moo ko moom. Hmm. nga fob dàll yi. Hmm. def ci nekk du noonu. def loo ko dal yi. yonent nga koy lépp ci xeetu ngaañ yonent bi sallallahu alayhi yooyu yëpp kenn ku ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama lay wax lu gën a garaaw. imaam Seydina Omar. radiyallahu anhu mm-hmm. dafa am benn waaye bi ñëw laaj yonent bi masala mu leeral ko mu ñëw na ko mu ñëw ci Seydina Ali na ko man Seydina Omar mm-hmm. na ko man damaa laaj yonent nii daal waaye li ma wax daal man a xaaral mu ñëw laa yàlla mm-hmm. Seydina Omar boolu ci wax dugg ci biir néeg bi génn jaar ci doog bopp <laughs> yonent bi wax nga naan ni wax <laughs> loolu daa mel ni daga nga naan wax rek mooy yëkkati yëpp wóoree na wax rek parce que loolu moom dafa mel ni mais parce que waxam du yàlla. te moom dafa mel ni dafa suufeel waxam. jeex na mel ni ay waxam amul bëgg a jël waxi Omar teg ci kawam. na mais Omar moom beneen affaire. moo ne ñoom ñaan ñëpp nag ñii ma la wax nag. ñoom ñaan ñëpp nee na ñoo yem ci yoonu ni leen a xàddee. rey moo xam musliman kaana. Hmm. moo xam jullit la. wala du jullit ku ngañ ñu yonent bi. ku ngañ ñu yonent bi nag. Mhm. ñaari ñaari jam-jam moo ci am ñaari façon rey da ci am mhm. nga déglu bu baax mhm. dafa am euh, jërima boo xam ne di jërima radd la ngay tuddee radd riddatu maanaam da nga am murtat ki nekk jullit ba pare ngaa ñu yonent bi danañ ko jam rey ko maanaam danañ ko jam jamu ko murtat maanaam ku nekkoon ci lislaam génn génn ci lislaam benn danañ ko jam tamit jamu ko ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. allahu akbar ñaari sanction mooy dal ci kawam parce que ŋàññi ak yàlla da cee am. parce que yàlla lépp lu yonent bi mel moo ko mel. dëgg la lépp lu yonent bi am ci garaat. subhaanahu wa moo ko jox garaat. waaw benn waaye day wax am solo nee na yonent bi lantinoor la. lay wax na dëgg xam nga lantinoor. lantinoor waaw. la cay génne. Mhm. jógewul ci moom la nekk ci kaw mhm. kooku mooy mooy jëmm yonent bi te ku loolu kenn mënu ko xam li génn ci moom rek lañ xam allahu akbar mhm. lant noor li génn di dugg ci lant noor bi mhm. na loo xam du de waaw dëgg la waaw jeex na dëgg la kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi moo tax dañ koy jam jarimatu chatmi li zaatihi li zaatiha li ngir jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga mi nga mi nga jam ñu ne waaw waa ji su tuubee nag maanaam jullit bi dafa ngaan ñu ne di bëri tuub ah wa yëkkati tuub bi danañ ko ko nangul fekkee tuub dëgg la waaye la budda lam turfa uqubatu shatmi ngañ gi nga ngañ yonent bi moom kenn ko baal mbugal gi moom foog mu tax mën na am chance ñu baal ko nag mu duggaat ci diine waaye sanction bi moom daal waaw léegi dana duggaat ci lislaam. waaye mhm. du tere ko da koy ray parce que ngañ moom ak lu mën a xew atteem dee peine de mort mooy atteem peine ah léegi nag ku ngañ yonent bi tamit te yéefee tamit mhm. sa deret comme waa ji li mu def woon noonu waaw tubaab boobu euh, kooku lam def Samuel Paty ah la kay kooku petit la sax lu Paty Samuel Petit dëgg képp ko borom xam-xam yi wax na yonent bi sallallahu alayhi wax leeral na ne benn waaye dafa ñëw ci moom saxaaba na ko diw day dafa ŋàññ yonent bi dafa la ŋàññ dama koy rey mun na ko waaye dem rey beneen bi firnde loolu mooy kaa ibn Zuhayr ñëpp jàng nañ ko borom borom borom borom. baana baana zonaat zonaatun faqal bi yow matbulu wallaay mu tayyamun isra mu tayyamun isra lam yow makbulu. xaada da benn isra abu wallaahi demee ba ci biir yonent dana woon ku ko gis rek naa deretam neenal naa deretam nag su ko sharia waxee mooy ku ko gis na nga ko rey mm-hmm. bi mu mm-hmm. ak ni ngi yonent dafa am loo xam ne si yonent bi rek moo ko sañ am na ci sañ-sañ moom mais mm-hmm. ñun jullit ñi am sañ-sañ mooy ku ñaan yonent bi ñu def li yàlla wax dañu koy rey rek dëgg la war a fi ngàññee yonent wallaay rajab la wax ne hmm. bokk nag moom jamono réew mais suñu noonu moom réew dañuy joorante am moom bat boobu lay tuddee si keroog dóorante moom ay ku faj maanaam dañ koy rey waaw maa ngi ñëw foofu sax sëriñ euh, waaw waaw yëgaleen ahkaam ijma hmm. yi ñoom niñ wax borom hmm. xam-xam yi dañoo dajee wax ne képp ku ŋàññu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wujubu xatluhu même saxaaba yi sax am na ñu wax ne saaba si boppam ku ko hmm. ŋañ hmm. da la war a rey allahu akbar ah asxaabi ga nujum waaw bi ay ximiq tëddaytuma tëddaytu saabi xam nga ñun xamuñu gëdd yu yi ba léegi dëgg la de ba ñi ñu ci bëri jàngaluñ leen kan mooy sallallahu alayhi wa sallam loolu dëgg la parce que saaba yi ko daroon ñoom dañ koo xam xam gi mooy xam nañ ni yu kii di dox di ànd ak ñoom ak li tax ñu naan yonent ñoom loolu la leen yàlla xamal nu ko wëri Mm-hmm. moom la ñuy xeeñ. ba mm-hmm. tax yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam bokk du nit ñi du nit nag. dëgg la waaw. Ah. annahu ah. basharun. laa huwa kal bashari. bal. bal kal yaaquutatin bayna al hajar. macha allah. wallaahi hmm? wallaahi. Mahamadul Bashir waaye laa huwa kal bashari sëñ bi. allahu akbar. bal huwa kal yaaquutatin bayna al hajar. dëgg la. yaaquut ak hajar kan ma leen dëgg bokk na de wuru sa xeer. lii mu yonent bi wuuteeg ñun. ñun la wurus wuuteeg. xeer sore na trop. sataana baynahuma. ñu ne yonent bi niroowul ci dara. sallallahu alayhi wa sallam niroowul kenn ci dara. fii Sénégal nag. réew mu doy waar la. réew moo xam ne ci kenn ñu bëri joxutum gëdd sa Seydou Wujur. xamaguñ xàqam de. maanaam tey jii soo bi. foofu sax laay potoxloo. ma dugg foofu ginnaaw bi mu añee li ñu leer suñu bopp ka ne ñaari point yu njëkk yi alhamdulilah rabbil alamina leer na ko ne kon kuy saboote yonent bi bàyyil xel sa bopp moo xam jullit nga wala doo jullit waaye sa deret lew na mm-hmm. bu la nit ñi reyul it am nga àtteb rey ca yàlla mm-hmm. te mbugalum yàlla moo gën a metti nag ñu reyoon la ci àddina moo gënoon sedd foofu nga na rey duggaale loolu biir bàmmeel mm-hmm. yaa yaa ñetteelu point bi daanaka yaa ngi koy xaw a boros mooy taxawaayu jullit bi ci bu ñu defee nii yonent bu ñu ŋàññee nii yonent gis naa sax nga junj ci léegi Maulana Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh radiyallahu anhu nga xam ne bëri na ci Sénégal tey ñoo xam ne moom moo tax ñu xam kan mooy salmaan Rushdie ndax taxawaay boobu moo amoon. léegi nag yu mel nii bu amee lan moo war ci jullit bi lan mooy taxawaayam. maanaam ab jullit. li war ci njëkk ci moom moo xam mooy yonent bi moo gën jëmmam ji. allahu akbar. maanaam yow yonent bi taxawaay sa dund mhm. su taxawee yonent bi taxaw sa dund day neen sa lépp day neen sa alal day neen sa lépp day neen kooku yàlla kenn la la ko jagleel am awlee bil mu'minina min anfusihim moom tax alxuraan la de yonent yi na yonent yi moo gën a yay si ñun ab yonent tey soo gisee su soxna mhm. ab jigéen boo da ah, yaa ko takk de muy farata yàlla mu soxla ko mhm. xaraam na allahu akbar kooku yàlla yonent bi rek la ko jagleel. sallallahu wa sallam. te di gën a garaaw su imam Babacar mooy. ak mhm. yonentu amul bànneex. Hmm? déedéet. du miir bi lan yemale. faale wuñ bànneex. amul bànneex si jigéen. benn yonentu bu yàlla bind bu am bànneexu jigéen amul. ibadan. kii nag sew sew bu rëy. waaw yonent yi. du takk ñuy tax na yonent bu takk soxna te mosul sëy moom. waaw wala tax mu takk nag. parce que jaamu yàlla la. ah d' accord. te ndigaloo yàlla yàlla ko santaane. dëgg la te lu yàlla santaane yonent ñoo ci man. allahu akbar. dafa am jaamu yàlla boo xam ne indirect la. mooy ni ngay jullee wooree. Mhm. am jaamu yàlla boo direct la. Hmm. maanaam. direct mooy. du jaar fenn day def direct suñu borom. kooku mooy say action. loolu sew sew bu rëy la oustaz. moo tax ñu bëri dañu jàpp ne yonent yow comme ni nga mel noonu la mel loolu ku ko def da laa war a rey. yemul ak kenn yonent bi ñëw na kenn ci nen ci benn côté. charwaahu ma dammahu asdaafu min tuwam tallaahi ma xiftu taxnika. léegi nag jullit ñi. Mhm. su ñu mel nii amee. Mhm. tey jii war nañoo gedd lekk gedd naan ngir taxawal dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci wax wax ji. Mhm. tey waroon naa yëg ne jullit ñi kat kenn wut leen la laal. waaw dëgg la. loolu nag li mu koy yëgee mooy xam ne nit ñi tàggaloo neen seen sow. dëgg la. mais loolu lu loolu amul. wax dëgg yaa ngi lekk di naan. moom daa moom mi ngi gën a osé sax. Macron mi ngi gën a osé sax nee na moom du tere kenn dara nañ def lu leen neex parce que loolu liberté d'expression la seen constitution da koo maye ku bëgg a dessiner na dessiner lu ko neex. waaw xam nga loolu lu tax mu ñeme mhm. xam na doyatu julli yi. parce que tey fi ñuy wax ne mooy mooy capital islam. Makka wala gën a amee. loolu dëgg la. wala tey tey jii li Danemark di ni ko kii ni ko def. Turquie def waaw doon gën a def ñan la. Erdogan jàmbaar. kan moo li li la gënoon a yaay. yéen bi Makka dëgg la. bien jullit yëpp ñoo ko yor. fala sayyidil wujudi tëdd. waaw waaw kullu ah, biqaay. wallaahi ka nuqtatin. bi mhm. bahri taybata naazilina himaaha. allahu akbar. kullu biqaa'i nag. xaysu kunna ka nuqtatin fi bahri Tayba. pàcc bu mu mën doon. nga ne ji la yeneen fi mu tëdd mi ngi mel ne rek nga foog sa baaraam sàbb ko ci la nga yëkkati la ca dox loolu mooy pàcc yi ci des yëpp nga ne marine mooy lu gën ngir lan sa yeneen yi bu fi tëdd. maa mitla taybata manzilun wa kafa biha faqrul Mustafa bi rubaa. maanaam. amul ku mel lu mel ne Taïba ci wàccuwaay fa mu tëdd ndax yónni di ba fa tëdd mboolem masaay lu arba jàpp jàpp xam na ne mhm. d'accord nañ ne Madina Munawara moo gën ci dëkk moo gën kaaba mhm. ëpp doole mhm. yónni fi mu tëdd mu ëpp doole kaaba yi allahu akbar kaaba gi bi suñ bi aw xeer la dañ ne fu yónni mbindeef la waaw dëgg la dëgg la Mhm. kaaba gi alwaaru aqiqatul muhammadiya bi nga fondement fan la jógee. ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. réalité yonent bi dëgg-dëgg aqiqatul muhammadiya mu def moo sottee ko ci kaaba gi moo tax kaaba gi mën a taxaw moo kaaba gi mën a le nekk leer. allahu akbar di digg àdduna bi. nekk noonu xeer kese lay doon. yonent rek moo am sa bi ku dul yàlla amuloo maanaam yonent rek yàlla rek moo am te kenn la amal mu yonent. yonent sallallahu alayhi wa dama xalaat yonent bi moo xalaat allahu shay'an li nafsi siwa sayyidil mahmud waaw léegi loolu mooy loolu mooy la mooy yàlla lenn rek la bind pour jëmmi boppam ci sallallahu alayhi li am lépp ba ñuy tuntoogaay bii su hmm. ko yonentu am parce que wa awjada baaxil xalqi ta'zima hubbihi jeex na <laughs> lépp la ngir màggal yonent <laughs> yow la ki tax na màggal nag yow loolu lan la war a jaral dëgg la mboolem sëriñ bu fi tudd fii Sénégal. dëgg ak li ngir génn Sénégal. Mhm. matal ba ma nga am ak. Mhm. wilaay ya nga am ak. dëgg yow nag yow nga war a delloo ci suñu ko saaga. des na. non taxawaay fii nag moom ku fi laaloon ab sëriñ ragal naa ne dana wuuteeg loolu ni mu demee ci yonent bi. xam nga Omar Fouti yal na yàlla ñu ko yàlla dolli leer. Mhm. yàlla tas ñu ci barkeem. amiin yaa rabbi. dana hmm. bépp nit bépp bépp bépp bépp jëmm joo xam ne ci rek. Hmm. di ko rend am na ko ñëw taxaw. waaw na waaye di kenn ko fi rend. Ah, waaw ba mu des diine. Hmm? diine diine waaw ba mu des diine. ba mu des diine. kulli ci. xatile naa kenn du ko joxe. koo fi rayoon tey jii ñëpp yuuxu nee na diine bi nag soo ko tëroon di ko rendi nit ñi dañuy lekk di naan. Ah, dëgg la doxi seen soxla seen soxla dëgg la. kon moom xamoon na lan la ko yonent bi lan la wàcce waa bi lan mu junjee sax hmm? bi mu junjee ba wax ne man màkk man li tax ñuy noppi ci yu mel nii daf maa jaaxal ñoom bu ñuy attaqué lislaam seen yoon te ñoom ñoo toog ci lépp benn mbokk ne ma ñoom dañu bind lettre sax far di massawu waa France seen waa jooju ñu rey faaf. waaw xam nga sëriñ bi mag ñi dañoo yeewu woon. Mhm. ndax teel a xam ne. suñ Babacar soo ko mosaan tàggu ko damay dem aji mënoo bu fa dara. waaw akbar toll na yonent bi fa mu tëdd nga ne la bu fa roy dara bu fa roy dara. wax ju naqaree dégg la woon. naka dégg nga bëgg a sikki saako mu ne te ñoom ñoo génne woon yonent bi. loolu dëgg la. ñaareel bi ci des oustaz man màkk dama fa gisul surtout yonent bi ñu yoru nguur gi satu yeneen bokk ci ñu yor diine ji. nekk màgg ay buur lan ñoo fi génnee sëtu yeneen dañu ñëw dàq leen dëkk bi samp ñoom ba léegi moo tax ay am mu am màgg am waaw ah, parce que dañuy donnante. donn sëtu yeneen bi lañ bay dégg sëtu yëpp bañ ñëwee dañ leen a ñu génn. mais lii leeragul ci bopp jullit yi de. waaw Màkka ak mm. Madina danoo dàq sëtu yeneen yi ñu génn nguur ña fa nekkoon nag ñii fa nekk nii seen maam moo fa dàq ay sëtu yeneen Ah, ay zawjee ay waaw saudiya. saudiya. ñooñu nag Màkka lu dugal Madina Munawwara. waaw ñaar Madina Munawwara ak Madina mm-hmm. moo gën ci dëkk soo déggee ñu la euh, ñuy wax naan xubul watan yi. ci turam ay watan. Mm-hmm. watan bu ñu ko waxee Madina Munawwara lañ ci nam. bëgg Sénégal gi bokk ci liimaan. Hmm? fan la nekkee ci liimaan. mu ngi bëgg Sénégal. du liman. gars yi loolu la ñuy wax de. bu ñuy bale mbedd mi sax dañ naan lu xamul waxtaan yi mu dafa daan nekk taara. Ah. la am. maarifa la maarifa la kooku taxis la. watan du ko waxee su noonu ubbul watan nin wala amul liban la am. yow mën a doon waaw. da nga xam ne yow sa réew mi sa sa jorof ko moo ëpp doole ci yow. Ah, dëgg la. waaye ubbul watan nag. mooy fa yonent bi tëdd. benn dëkk la. sa déggin bi am na solo bëgg lu mu nawaraan bokk na ci gëm yàlla. macha allah. mais bëgg na si des na Sénégal gi bokku ci gëm yàlla. <laughs> bëgg Sénégal. bokku ci liimaan. loolu dafa war a leer ci bopp nit ñi. bëgg Madinatu Munawwara moo bokk ci liimaan. est-ce que buggul watani al watan su ñu ko defee mu am lii fa laam benn dëkk lañ ci nam mooy Madinatu Munawwara mu yëngatu bi dëkk. su na wata nit nag amul lifan la mu nekk nakira dëkk boo mën doon yow moo ko dëkk bëgg ko day nekk fa fa day bokk li mu mooy dëkk boo xam ne ci ñëpp dañ ko a bëgg ma fa tëdd sallallahu wa sallam sallallahu wa sallam kon yonent bi mhm. ñun jullit ñi su mhm. taxawee tey ñu ŋàññi ko waaw suñu waree mooy ñu jóg ñu ñëpp jënd mhm. xam ne. Mhm. tay ñun waratuñoo am benn soxla ci kaw suuf. allahu akbar parce que tey saaba yi lu tax ñu daan dee. lu mhm. tax ñu daan dem di ci xare di dee. diine leen ko jaral. diine ko jaral. diine nag suñ ko waxee yonent bi la. fi yi moom. soo julli. Mhm. te waxoo ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah soo julli wéru. sooy dugg ci lislaam am xam nga naan ashhadu an laa ilaaha illallaah mhm. wax na ashhadu anna muhammadan rasulullah soo waxul ashhadu an laa ilaaha illallaah wax ashhadu anna muhammadan rasulullah sa diine wér na hmm? waaw soo ne ashhadu hmm. anna muhammadan rasulullah <laughs> ah wax tudd nga leen ñoom ñaar ñëpp sa diine wér na waaw ah, ñoom ñaar mais soo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah na ko képp hmm. sa diine wér <laughs> dëgg la kon yonent du for na de effectivement dëgg la ci yëf yi ci yonent bi la nekk allahu akbar ana min allah fal mu'minuuna minnii uh-huh. man dañ maa am ak affaire suñu borom. Uh-huh. jullit ñépp mën na am ak affaire. macha allah kon ñun tey suñu affaire benn la war a doon ñu taxawul yonent bi xeexal ko lii ñu ko. wallaahi. demee ba. Oh. nit xalaat di ŋañ yonent. waaw. non feebul waaw waaw yàpp nañ ñu ba pare. boole ci taxawaat di ko wane ci àddina yëpp na delluwul ginnaaw ci dara. Euh, oustaz am nañ ci ay taxawaay wax dëgg yàlla am na ay association mbootaayu imaam yi ay association ay daayira maanaam daal amul benn couleur am na ay jullit yu volontaire jóg ne ñoom danañu wane ne àddina yépp ne ñun lii waa France di def yonent bi ànduñu ci te danañ ko wane ci àddina yépp naqarlu ko woote ko fii ci Ndakaaru samedi jàmm incha allah la set ñu ngi ciy woowaale sax mbokk jullit yëpp samedi la 7 10 association yëpp a ngi ci daayira yëpp a ngi ci imam yëpp ngi ci borom xam-xam yëpp ngi ci ñu fas yéene jëmmal àddina wan waa France ne leen ñun moomu leen ñu te lii ngeen di def ci yonent bi danañ ko jëmmarloo ak yéen danañ leen boy boycotté danañ leen pancarte danañ leen wax lu leen naqari danañ taxaw sitting àddina yëpp xam ne neexuñu loolu oustaz euh, yaa Cheikh Afan fas nañ ko yéene taxawal fii ak samdi loo ci ñaax jullit yi ndax taxawaay boobu ba xam. jërëjëf sëñ Babacar. Mhm. loolu ki si waroon a jiitu. Mhm. mooy président. dëgg dëgg te ju nee na waaw. kenn waru ko na njëkk ci place ba la set. loolu di dëgg la moom. benn zone da ngay da ngay mhm. président mu war a boycotté comme ni président. Erdogan Erdogan taxaw na benn marchandise. Mhm. France. bu ab tubaab moom. bu fi dugg bu fi dugg bu kenn jël. loolu yow mënoo ko. man mënuma loolu dëgg la. aw ma sulta aw ma saytara. Mhm. loolu président bi yilif réew moom moo tax nga xam ne demoon na. ca Charles ga ca Charles ga effectivement waroon na ñëw ci place Obélisque bii. loolu dëgg la ngir su xol mën a dal. waaw ñu xam ne kii ci ñun la bokk. ñoo waaw war naa feral suñu rongoñ yi nag. ci la set bii di ñëw. mu ñëw teew fa. benn la set bi. Mhm. man li mu ci xalaatoon li gën mooy ne ñëpp génn. Mhm. sëriñ si. comme imaam yi la wax xam senegal dëgg la Sénégal su ñuy wax dañ naan imaam yi te imaam yi kenn faalewu leen. loolu de dëgg la. kenn yëgu leen. dëgg la dañ naan imaam yi rek association imaam te association imaam kenn lijjantiwu leen. loolu dëgg la. a asaatu imaam dafa am ñu leen war a dooleel. mooy ñi nga xam ne dan ne seen maam ñoo fi nekkoon ŋànk diine ji. nekkal fi yonent bi nekkaloon fi yonent bi. Mhm. nga xam ne ci leen daan xëy. ci leen di gon. Mhm. barke bi ñu yore tey. Mhm. ba nit ñi di leen topp ak ŋar-ŋar yi. dëgg la barke yonent bi la. dëgg la barke boobu noonu nag nga ci dund. wallaahi ban xëy ŋàññi ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi sa waaw sa waaw loolu dugg si néeg di recevoir kenn. dëgg la ñëpp dañoo war a génn ñëw ci place Obélisque. keroog bi. Alaaji Abdu wootee ci Salman bi. Mhm. daf ne benn sëriñ wurtu yable te moom dafa génn ñëw. ne kii tax yàlla bind ñëpp. Mhm. mu gën ñëpp. Mhm. ba tax ñun ñi raamal di lépp ci moom la jógee. kooku lañ saagal kooku lañ ŋañ. man wóotuluma sama bàyyi wóotuluma sama maam. kii kenn wóotul fi bàyyi kenn dañ ne. kon gën ji mbindeef mi nga xam ne ci mooy afdalul xalaayiq yi nit ñi dañu war a bàyyi xel na du amul benn kilifa gu nekk Sénégal. Mhm. su ma ko waxee ne gënuma kenn. képp koo xam ne ci ñu ngi ko fiy tudd turam. Mhm. naan ko kilifa nga. Mhm. xoolal oblige war nga yow am nga ngëm-ngëm loolu nag. ñu ci woo sëriñ sëpp. ah waaw. di ci woo gouvernement bi ñëpp. ñu nekk ci gouvernement bi yëpp ne dinañu gëm yàlla mhm. te xam ne tey nguur yi ñuy xëccoo nii yëpp mhm. wallaahi lépp la allahu akbar lépp yonent bi la kon war ñoo war a delloo njukkal yonent bi njukkal yonent bi sa alayhi wa sallam macha allah ndax mhm. tey koo fi tudd fii maamam rek ah. moom rek la gëmul dëgg la kon suñ gàññee yonent bi ba ay nit jóg ñu leen wooyu ay imaam ak ay association famille religieuse yi. Hmm. yi ñu tuddee famille religieuse. Hmm. war nañoo génn ñoom ñëpp. dëgg la dooleel yëf yi. xam na ku dégg ma koy junj naan ak neexoon suba ñu naan. bii si Tiwaawan la jógee bii si Touba bii si Kaolack bii si Njaasaan loolu moo normal. xam nga loolu ah, mooy yomb dëgg la. Hmm. ku mel ne Cheikh Omar Fouti ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp ci ci xeex mag ñi dañuy xeex ci yonent bi seen xalima bind ci yonent bi wax lu nekk. guddeeg bëccëg mag ñuy tey jii suñu ngaañ suñu fekkoon tey jii ñu ngaañ ñun di wallaay wallaay kon ñu joxe seen bopp de ñun ñëpp war nañoo génn ñëw ci place Obélisque incha allah ñëwul pour xuloo déedéet dañuy ñëw peeñal suñu naqar mhm. win am ci mhm. benn góor bu ñu benn waay bu nekk France waaw di ngaañ yeneen bi di ngaañ yeneen bi ba pare mhm. président ba di ko dooleel lool sax te ñun ñu ay jullit lan mooy suñu taxawaay ci lii du ci rek ku nekk rek toog sa conférence wax li ngay wax déedéet yooyu dafa yomb soo jógee ñëpp ñu xam ne bis bii gët bis yonent bi kese lañ ko jagleel. wallaahi. amul tariixa. Mm-hmm. sëriñu tariixa dañ koy teg nale. Mm-hmm. tariixa yi li ñu fa teg nale. taxawul mm-hmm. yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam yonent taxawul benn tariixa kontu la. yonent. moo tax tariixa yi kont. dëgg la yonent bi suñ ko suñ ko taxawulul benn tariixa kontu. allahu akbar benn tariqa laa wax mënut a compte la ñuy wax ci tariqa yëpp kon ay foo la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ngay dugal ci lépp nekkal ko ci lépp. Mhm. taxawal ko ci lépp. Mhm. la ngay def mën a taxaw. jërëjëf. mooy afdalul xalaayiq yi. wallaahi wallaahi wallaahi. ndax looy looy mën di looy mën di ut. ci mhm. yàlla lu mu mën di doon yonent bi mooy bunt bi. dëgg la wa huwa baabullahi ayyumri'in ataahu min xayrihi laa yadxulu wallaahi yonent bi mooy buntu yàlla. Mm-hmm. bunt boobu noonu nag ah mm-hmm. képp ku bëgg am dara cër ci yàlla mm-hmm. bunt boobu da nga ko jaar bunt bi nag su nga ko waxee mooy nag ñi ñuy génn na ñu génn ñëw la set samedi ñu feeñal dix heures dix heures ñu feeñal suñu cofeel ci di bi sallallahu alayhi wa sallam feeñal naqar feeñal goo xam ne ci day jéga dayoo dëgg la amul xuloo amul yat amul baat dara waaw bañ nañ ko ba sax nee nañ ko am sa yëre bu weex tal solal. parce que yonent bi nitu jàmm la. effectivement. Ah? yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. suñu ba jamono tey jii dañ ñu koy ŋàññe nag mooy suñu war war waay. taxaw temm na Sénégal nag li tax nag xeex bi dara yombul. ay association la. ay imam la xam ay association yëpp. ay jaaxal la. nit ñi de compter wuñ hmm. benn la mooy Seydil Wujudi. sallallahu alayhi wa sallam taxawal. xam nañ ñu ñëpp dañoo war benn daje ci benn baag turam benn mooy yonent bi moo fi nekk. sallallahu alayhi wa sallam. su ñibbi sa kër nag nga xam nooy lijjantee sa kër. mais war na nag ñu xam ne ñun ki ñu boole. Mhm. ak li ñu boole yonent bi bi la macha allah. yonent boobu ñu boole nag. ku ñibbi sa kër nag mën ngaa sa tariixa. dëgg la ak sa sant nga def ko. ndax loolu lépp ñu ngi ci biir yonent bi. dëgg la mais nag comme ñu ŋàññee yonent bi nga noppi. Mhm. suñu ŋàññee nga yuuxu. Ah. dañ koy seetaan. dëgg la moom am na lu muy teg. yaa ngi jaamu xërëm. Mhm. te jaamu xaram. <laughs> loolu jaamu la. dëgg la jaamu xërëm la. dëgg la te nag ñu jaamu keneen. ah déedéet. yàlla binduñu pour ñu topp keneen. déedéet wa maa xalaqtul jinna wal ins. illa liya'buduun tehtaju. kenn rek la ko yàlla garanti. kenn la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi nag ku teg tànkam fa mu ko tegoon. Hmm. way du daaw mu ci yow. waaw ah, d'accord. Mm-hmm. yonent mm-hmm. ku teg tànkam. tànkam fa mu tegoon tànkam te yonent bi sëñ Babacar dafay jógewul nag. Hmm? yonent bi jógewul fi di. est que dafay jógewul maa daama xayat mi ngi dund. shahidun aleykum. waaw ah. nit mun lu seet lu mu fekkewul. dëgg la yonent bi ngi shahidan mi ngi mi ngi lépp lu nit def yonent bi akbar mooy tax mu mën ñu seede. loolu tax mooy la ngay def sax pour mu mën nekk. Mhm. day fekk yonent bi teew su teewul dara du nekk. lu xoot ngay wax. waaw yonent bi rek la. Ah, fii lépp yonent bi la. Hmm, yàlla dafa foog mbir xam nga yàlla du fi ñëw di répété. fii moom yàlla ba la ci pare. kun ko nag mooy kun kuni. lay wax yàlla du di waxaat di répété. Mhm. kilifa ko doon na yàlla ba mu ne kun la. pare ci pare ci lépp. lépp nag yonent la. sallallahu alayhi moo tax éléments yi war ci moom lépp. yàlla moo mu garanté ko defal ko ci moom adaba li rabbi fa ahsana moo ko sañ wax waaw ah, moom rek fa ahsana ta'dibi mm-hmm. mm-hmm. li nekk ci moom mm-hmm. te mooy jikkoom ya te xalaqoo bi axlaaqi laahi kooku mi ngi ci yonent bi sallallahu alayhi du xadis la kay xadis la bi axlaaqi laahi axlaaqi laahi mooy jikko yàlla yi lan jikko yàlla mooy te xalaxu bi axlaaqi waaw dëgg la. bi axlaaqi mm-hmm. laahi. laahi la wax. laahi. Mm-hmm. yonent bi jëmmi boppam ngay jikkoo jikkoom. loo mm-hmm. koy jéggu jikko yonent bi di jëm foo foo jëm. kon nag yonent bi rek moo am sëñ bi. sallallahu alayhi wa mag ñi moo tax ñoom dañoo xam lépp rek ñu kose ko di yonent bi mu jeex. allahu akbar. abdun. kii naan man lii laa. kii naan man lii laa maanaam waaye xoogale ko. déedéet kenn sañu ko def ci kanam yeneen loolu dëgg la kon nag loolu ñun ñëpp nañ julli yëpp nañ àndandoo ci loolu jëf si ah tariqa yi dafa yàq lu bari mhm. parce que ni ñu koy doxee ak tariqa maa ngi ni ñu téye woon tariqa bokku ci hmm. tariqa du par pour par parloo ah, léegi nag moo fi xew tariqa pour man a xool nooy ñoŋale ci diini la wuu léegi clan la waaw mais loolu lépp li koy waral rek mooy business la dafa am yeneen ñu dugg ñu ci bokkul. Hmm. mais fekkee tarixa rek la ni ko ma ngi tërle woon. Hmm. laa ilaaha illallaah juru xuloo. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah. ah non non ah, ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam loolu am nga yorante. loolu jarul parce que ku ci nekk la nga cay jëfandikoo moom lay jariñ. mais nag mbooloo mais xaalis bi ci ginnaaw. waaw mais xamuñu moom sëñ bi. loolu ci bari le benn bànn bu nekk fële mën ko. Hmm. mbooloo loo am mbooloo am na boo xam ne ci am musicien maa taxaw fële tu ne wóoy ñëpp yóbbu. loolu dëgg la kon yëf yi nekku ci mbooloo. Ah, du juddu Michael Jackson da daan def nii gars yi di xam. ah xam nga rajo bi li mu wax lu leer la du juddu du dafa tekkiwul. ilaa man atala bi qalbin salim rek. du juddu du mbooloo. Hmm. yeneen dib yi xanaa kon moom nekkutoon ci dëkk. ba mu dem ah, pare bala. ok ah, mbooloo déedéet yëwéer ñetti téeméeri nit loolu nga xam ne daayira yu ndaw yi sax ak gëm naasu waaxid misluhu alf am na kenn nit koo xam ne ci mu ëpp doole million nit mhm. al adadu laa yoxsa mafuul adad laa yoxsa rek bu na alfu nga jàpp ne alfu benn nit mën naa ëpp doole millions nit ñu mhm. ci wàllu lim ci wàllu usul mhm. su nangam alfu la jàppal na ëpp na ko al adadu laa yoxsa kenn du ko limité noonu. waaxidu misluhu alf fekk na mën naa nekk ay milliards ne sax. Mhm. parce que yitte jëla ak taxawaay ci. ala himmati fajar yi daal yaa ngi di ansur sa borom. xaalisam këndawee mbooloo mu ko tax. mbooloo mu la topp. lay tënk sax. ah bisa ñëw rek ñu gas pax mu ngoon ñu dugal ana mbooloo ma. dëgg la nga ba fa ñëpp ah, ñëpp. kenn du ci jut ba xam. de non dañuy dem ñibbi. dañu dem seeti keneen koy des. allahu subhanahu wa taala. ay bu diggante ba rafet. bëri na tey ñu dal ci kaw tariixa yi fekk nit ñi jëfandikoo tariixa ñoom ñooy jàdd yoon. Uh-huh. ñooy jàdd yoon parce que gëdd gi ñu war a jox diine ji day des. loolu dëgg la daf joxaat leneen gëdd. bàyyi diine. te quelque chose yaa ngi julli. Hmm. fooyee yonent hmm. di ko sàllalu hmm. nga xam ne ji ab yonent kenn du ko sàllalu yonent bi kenn du ko sàllalu sàllalu mooy sàllalu mooy nga naan Muhammad nga jaar ci turam direct def rek Muhammad nee na Muhammad ko nii ay caaxaan sa baay rek sa doon yow sañu ko sàll ah, sa baay yëpp yonent moo leen gën sa sëriñ bi nga yaakaar sañu loo ko sàll sa papa kay danga nga dund moom ba mu génn àddina doo tudd turam. bàpp nga yow waaw aswaajum ummahatul mu'minin kon la. suñu waajur la. dépassé na loolu. yonent bi moo ñu moom. sallallahu alayhi wa sallam. da yonent yàlla wax ci garaaw. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. daanaka yonent yow juróo kenn. waaw. maa kaana aba ahadin. doo bàyyi kenn. min rijaalikum. xanaa yonent am doom. amoon nay doom de. am na doom. lu xew. waaw lu tax yàlla na ko nag doo bàyyi kenn. yow loolu loolu loolu nag loolu li ñu doon wax léegi ne yonent bi. nekk di ay bàyyi. maakaana googu ñun du nekkul. maakaana hmm? doxalul la. yonent bi <laughs> la firi. déedéet. maakaana man bàyyi kenn laa moo tax kenn du ko doon. yonent ñëpp. ñu ngi ci biiram. sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp ci biiram lañ génne. est-ce que. Noorul Mubinul Ata. Noorul Mubinul ñaari leer rek mu am leer yàlla leer yonent leeru Alxuraan. Noorul Mubinul Ata. Noorul Mubinul. Hmm. li irshaadil ibaadi jamii'an. kooku mooy Alxuraan. Hmm. kooku mooy Alxuraanu Kariim bi gaa yi xeex. Noorul Mubinul Ata Noorul Mubinul li irshaadil ibaadi. waaw foofu de laay potoxloo. jamii'an rabbi yàlla loolu mooy Alxuraan. kon alxuraan bi la ñuy tëjee yow Oustaz dafa bokk ci actualité yi yi nga xam ne ñu ngi koy dund tey ci mujj jamono buñ doon xool ñi gën a souffrir wala ñi gën a sonn tey daara la te li metti da nga junj bay bi baytu bi ci ginnaaw dafa mel ni dara xewul dafa mel ni dara xewul te Oustaz daaraa ngi dund coono bu metti ren jii ñu nekk mille 2020 man sama bët moom mooy damaa fekkee damaa dox gis naa lu mat junniy daara ak juróomi téeméer ak lu topp yu ñu tëj ñëw tas daara ji génn xale yi yóbbu leen fii ci Ndakaaru tasaare ci dëkk yi lu ëpp junni junniy xale ñu tas am na ci xale yu réer ba fii may waxee yow kenn xamul fu ñu nekk. Hmm? am na ci xale yoo xam ne ba fii may waxee yow ñu ngi ci ay centre ñu tuddee ko centre Ginti xaw ma naan ba nii ñuy waxee yow am na ci sëñ daara yoo xam ne dem nañ ci kaso te. ma leeral balaa ma lay jox ñu leen ci mbedd mi ñuy taxawaalu sa biir kër lañ lay fekk jël xale yi ne la dafa am feebar bu xew te sa biir kër lañ lay fekk jël xale yi am na benn mbokk bu tudd Saliou Congaan bi ñu ko fekkee appartement am fii ci Cambérène bi ñuy génn xale yi xale bi nit ci douche bi sax di dem cabinet xaaruñu ko dañoo dajj buntu duus bi génn xale bi douche bi dañ ko toj te bu ñu koy def ay ONG lañuy ñuy ànd ak léeg-léeg ay tubaab dañ ci rax lu garaaw ànd ak police ànd ak préfet ñëw génn daara yi di tas di yóbbu ñee nga Saloum ñee nga Casamance ñee nga fu ne oustaz lii xew na ci diiru ñetti weer yi nu génn mu nekk jafe-jafe yu metti mais le problème mooy dafa mel dara xew léegi nag situation yooyu daara di dund ban jàngat nga ñu ciy defal te junj nga léegi ne nuurul mu binun ata nuural mu binun la irshad jàngal bi daal mooy li ñu ñëwaat ñee wàcc seen ànd. wax nag neew. jullit yee wàcc seen ànd. nit ñi nit ñi. ñëpp mënuñoo yore daara di jàngale. waaw loolu dëgg la. mais dafa am ñu ñu askan daara dañu ñoo yore daara. waaw loolu dëgg la. alaaji Malick. yàlla daan wax. jàngu ba rëy na. jàngu ba rëy na lay lay. lay lay day riir. zikar la wóolu doon na nombre Cheikh Tidiane doon nombre Cheikh Tidiane. Sadio Maye wax ne. Mhm. taalimuhum fardun. waaw. walaw bi ijaarati walaw mm-hmm. ay nit. Hmm. su la ko joxee. nga hmm. jàngal leen alxuraan farata la. donte ne da ustaas di ko fay. xam nga jàngale fiq di di fayoo nga ngóosi. ah fiq am na ci loo xam ne masal yoo xam ne foofu la. Hmm. masal yi taxawut alxuraan lépp dëgg. est-ce que boo xam ne dara taxawu ci. après ñu la xam nga tubaab moom kenn waxul ay waxam kon. ah wax rek mooy waxu boo xam ne ci wal xaqu. mais mën nga ko jàngale di fay. waaw man man la moom rek moo dagan. moom daara nag moom jiitu tubaab bii. Hmm, mais gars jàppuñ ne jàngale daara am métier dañ jàpp ne du dara. waaw comme le président ma ah. du dara waaw. jàngale tubaab. jàngale tubaab muy mooy. noobul noobul quoi noobul noobul du waaw. ñoom ñoo déformé tur bi. nabil mooy noobul rek. waaw hmm. mooy yonent moo ko wax na xayrukum. Hmm. man allama alqurana. waaw man taallama alqurana man waaw dëgg la. ki gën ci nit ñi. mooy ki jàng ba pare toog di ko jàngale saa may ne am naa lu dàq aljanna ñu ne ko si lan la mën a daara ci waaw la mën ji loolu du métier la hmm? métier pire tubaab yi hmm. dañ fay fekk daara hmm. daara yi xaadi amal faal ay seegal la waaw ca pire ay seegal la tubaab yi lakk allah pas-pas boobu ñu amul ci daara nag ba léegi pas-pas boobu mooy dox. Mhm. dañu fee fekkoon nag ay mag ñoo xam ne dañoo dëgër. waaw loolu dëgg la. àndandoo gëm aw xoraan nekk benn aw xoraan jënd leen nekk. d'accord yow da nit dana fekk sëñ Babacar ci daara mu naan ko dama lay yóbbu police. doo ko defaat xalaat doo ñëw ci daara ci sax. doo delluwaat de léegi nag fekkee ne yow tey ñi waroon a taxawu daara ñoo ñoo seetaan. waaw loolu dëgg la. léegi nit ñi di am fit. pour def ko pour ak engagé. Mhm. lay firndeel loola référence bi ma ci jox rek mooy Maulana Cheikh Alhaji Abdou Dabakh waxtaan yu mu doon waxtaan mhm. booba jamonoy Abdou Diouf la dëgg la gars yi yàgg nañoo saay-saay de torop yàgg nañoo saay-saayee dara yàgg nañoo xeex dara mhm. dem kokki jigéen gi mu faloon noonu jigéen gi ndaw si dem kokki fekk gars yi jéng kooku dafa am daal sax ñëw daj jéng yëpp daj giri giri mu daj leen donc génn dong yi. allah gars yi def li ñuy def. ci changé lañ noo jëndaw si. waaw ah. am ci la def waxtaan wu noonu ban ñu béy si biir mi daal si biir mi daal. Hmm. ñu supprimer daara dañ fi jigéen gi ñuy jox ay carte waaw jaay seen bopp jaay ak góor jigéen ñi la. Ah, waaw surtout. na fi xus. yow nga foofu ay daara di leen tas. di ay góor jigéen. di fat ay góor jigéen. di tasaare ay xale. loolu ñun jullit ñi ñoo war ñoo ñàkk fayda. dëgg la ñoo war a dem ci euh, poste santé yi ngay wax xaw ma lan nu koy waxee. centre Guinée centre Guinée yi noonu ñu di mm-hmm. génn xale yi par force. effectivement. foofu am ñun dañ leen dañ leen ko war a jaral. dëgg la. man du ma yore sama daara nit ñëw naan ma daaw yi dañ ma yóbbu xam nga yi may rey. dëgg la maa ngi eh. dégg Omar Sarr mu ne lim jaral addu kalpe bi. ba mu yóbbu kalpe bi bu ko jaraloon borom. kalpe bi kalpe bi du dem. ñoom ñu def loolu ku ci gëm yàlla amul. loolu dëgg la. gëmuñu aw xoraan gëmuñ dara. Ah, loolu de dafa am nit ñu nekk ci kaw. ñoo bëgg xam nañ ne benn leer moo mën ñoom liñ bëgg ci àdduna bi ya mën yàqu. lenn rek moom mooy problème bi mooy aw xoraan. Ah, fi mu ne nii mooy seen baaraas. leer gu aw xoraan bu mu xas ba nekk ci yow kooku mbindeef mënul laa daw yi. léegi nag il ñu jëm nasaxal daara yi donc mhm. nasar boobu noonu gouvernement bi ñoo leen ci jàppale. loolu moom lu leer la. gouvernement bi ci boppam ñoom ñooy jël seen plan ba pare duñ ci kay. ministre bi leen jiite. moo yore ministère de la femme et de la famille et di genre Ndeye Saly Diop Dieng moo ko jiite. te ministère boobu ci lañ dugal góor jigéen ñi moo doon tas daa yi. Ndeye Saly Diop waaw moo ko doon tas moom ñoo ko bàyyi. Diouf ñoo ko bàyyi kooku sëñ daara yëpp xam nañ ko daara yëpp moo ko tas moo jiite protection des enfants maanaam moom lañ dénk wàllum kaaraange xale yi moom moo war a ah bon yooyu yëpp ay far franc ce que franc-maçon yi fi doon ne ñoo dugg ci réew hmm. moo tax ñun suñ daara yi ak ñi bokk daara war nañoo xoolaat suñ doxalin dëgg la am fulla toll ne buñ bàyyi gouvernement bi muy fay dara. ndax dëgg yàlla. te léegi loolu la ci xeex bi mooy sëriñ si. waaw sëriñ si nag ñoo ci jàpp. waaye ñu ngi ci de benn waay boo xam ne ci saa yi imam Babacar. Ah, boo xam ne tekkiwul dara nga bokk ci wax dëgg yàlla. mënut a xeexal dara. dëgg yàlla. ah wax dëgg xeex. dëgg la te am na koo xam ne ci su taxawee wax. day pare. Hmm. waaw ah, loolu dëgg la. seen benn kàddu seen benn kàddu mën naa fare affaire. loolu seen benn sëriñ si laa wax nekk Sénégal. suñu hmm. taxawee ña seen. Hmm. laayal. canaba. Léon Léon mhm. Touba ñu mhm. taxaw benn kàddu ñu ne danoon dana ne bëgg mooy nan bàyyi donc yi ñu jàng alxuraan benn kenn kenn xalaatu doon laal daara yi te dañ génn ñu jàpp ñëpp nan delluwaat daara yi fa mu nekkoon daara yelwaan moo fi mas a am waaw boobu la ñuy a dégg yelwaan farata la day ah? ne tarbiya yelwaan du affaire waaw yalwaan du affaire caaxaan. ñoom ñu ne yalwaan torox la. ah ñàkk jom. torox mun torox mooy fen mooy waxul dëgg. <laughs> waxul dëgg mooy torox mais ja ŋàpp sa pot di yalwaan du lu torox yow da nga jàng aw xuraan da ngay tërbiyee sa bopp moo tax ngay ŋàpp pot di di yalwaan. dindi jikko yi rëy ci yow dindi nekk ci yow. man dama yalwaan ba sonn. man mii yalwaan naa. ba tay ba tay yalwaan añ sarax añ sarax weer kon xam nañ ne yalwaan. du toroxal nit. au contraire kooku noonu tey ci ëllëg ci biir lu lu la kët na jonn moom ngay woo. dëgg la. léegi nag beneen bi mooy sëñ daara yi tamit ñu bëri xamuñ seen taxawaay. loolu dëgg la. da am fulla. am merci beaucoup loolu moom dëgg la. li ñuy yoree kër. li nga yore da nga ci am fulla am fayda am xàmmee ràññee. mais soo yox yoxee rek nit ñi su ñëwee si kaw bopp bii dañ toog. waaw kay wax sëñ Abdou nee na sëñ Babacar dana ko woon doom lii ngeen yor nii. ku ci jéem dara pour mu yàq ko bu ko jaralee benn na leen jaral fukk pour mu baax. xam nga ñoom ñëwuñu ku nekk ci dëgg mënoo ñëwee. waaw loolu dëgg la ngay gisee nii ñoom ñëpp ay tapal. mais gisuñu gisuñu ay góor. taxaw ah, parce que xaajaloo bi moo moo métti. effectivement léegi sëñ di jaar nii ñii duñ ànd. waaw ah, ah, mhm. waaw benn bolok. taxaw fi toll li ba réunion yi li bëri bëri am ci am. dëgg la loolu dëgg la loolu dëgg te sax li nga wax nii li lay wan ne dëgg la Euh, bi daara yi defee benn collectif ba commencé di dajaloo defi lii ci lañ freiné ci lañ arrêté yi ñu doon def. jàpp nañu war a génn nii voilà si si si. da war a génn. ah oui. te ñu ut benn boo xam ne ji moom mooy moom la mooy saytu daara ji te mooy nekk si. normalement loolu mooy yoon. loolu mooy yoon. Mm-hmm. maanaam yow dong daara bi ak jàngatu arab bi amul benn cër ci réew mi. tegu fi dara. fi dara ak imaam ak association imaam yooyu yëpp ay caaxaan. Ah, amuñ dara. yaa ngi dégg baat amuñu ko ci. baat amuñu ko ci réew mi. loolu moom dëgg la nit nag soo amul baat ci réew mi mënoo fee taxawal dara. jazakallahu xayr. loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla nañ ci yàlla dimbale. amiin si amiin si. ah jërëjëf. tabarakallah jërëjëf Serigne Cheikh tey moom suñu émission bi beneen affaire la parce que gudd na lool parce que c'est la première fois ñu am gan te incha allah inspiré nañu sax danañ koy faral di defee nii xanaa di ko ñaan nag kilifa moom neexul di yëkkati toujours waaye du ñàkk buñ demantee ba ca kanam rek bu amee yenn point yu xaw a sensible yu mel nii danañ ci soxla seen jàngat parce que am na ci yooyu dafay soxla nga nga teg ci boroom xam-xam boo xam ne la muy wax kenn mënu ko dindi te ku déglu li mu àtte fii ci xaq yunti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak ahkaam yi wàcc ci ñi koy ŋàññ ak li mu indee ci daara yi te kenn gënu koo yell pour wax bu dee xam-xamay tax a wax dafa war a wax si la sant moom waxloowu ko waaw Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si la sant loolu wax loowu ko te bi muy wax texte yi gis ngeen ko jëlul sax daanaka référence moom fan la bokk xam-xam mooy tax muy wax al ilmu huwa al imaamu su ko defee moom nag ah wax dëgg yàlla ñun ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax mi ngi jàppale dong daara yi mbooleem sama classe gii nga xam ne dañoo toll ci lii téere bu la jaaxal ci moom ngay dem mu tëralal la te du la laaj dërëm sawar ci lool man bokk naa ci ñim tëralal téere kon loolu sant yàlla la Serigne Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax pour ma ñëw jox la nga tàggoo euh, jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel seen euh, émission jàngat ci lislaam euh, tey ñu dalaloon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane gis ngeen point yi nu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa gi ñu ko war a hormal parce que ñun suñu suñu état yu doye di yi rek président yi dañ koy defal benn institution bu mag jël ay loi garder ko offense au chef de l'état kenn du ko laal am ay loi yu ko aar mais fa kay fa yontu yàlla Muhammad kon sa alayhi wa sallam moo tax yàlla aaral na ko boppam wax na texte yi wax na ku jëm ci moom wax na ku ko offensé wax na lépp kon jërëjëf sëriñ Cheikh ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak mbokk yi. Euh, incha allah imaam jërëjëf. Mhm. ñu ngi santar yàlla bu baax. Mhm. di wax na liñ jublu ci mhm. ñu xam ne kalimatullahi waxu yàlla. Mhm. ak kàddu yàlla mu war a féete kaw lépp. Mhm. beneen bi nit tamit pour mu nekk am wëlal ci kaw suuf. Mhm. day dox ci lu neex yàlla. soo doxee ci lu neex yàlla sa wëlal jaamu. xaalis taxut a nekk wëlal. wala xadd karam naa bani aadama imaam. du lekk du naan du sëy. Hmm? ni ngay lekkee ni lay fas yi lekkee di ko naanee di ko sëy di tëdd nelaw teraanga ji yàlla defal nit mooy xel hmm. nit nag xel mi di ko yàlla jox lu ko hmm. fooye dem ba ci ulaay ka lana yàlla ñu yàlla musa ba dem ci baag ji bal humu adal bal nekk lu banati yàlla ñu ci yàlla musa yàlla ñu yàlla musa xam ne nit yàlla boo koo bind. Mhm. xel mi ko yàlla jox. da ko utiliser. mooy na xam ne suñu borom. Mhm. ah du lu ñuy foyee. Mhm. Ah. gëm-gëm nag. fu nit àgg mën a fa mën a àgg. gëm nag ba gën jeex. gëm yàlla dong. mën na ci jariñ. bëgg ba bëgg jeex. bëgg yonent bi dong mën a mën a jariñ. soo woccee ñaar ñi bëggaat leneen. yaa ngi fi mënul taxaw fenn. dëgg la la góor déglu xaal Allah. Hmm. mënul déglu xaal Rasul. Hmm. mënul déglu xaal Ousmane loolu baatin la. kalimatul xaq uridu bi wax li ngay woote du hmm. gëm naa diw. bëgg naa ko sopp naa ko sëriñ bi. suñu xoolee sa jëmm ji war nañ fa fekk yàlla. dëgg la suñu xoolee sa jëmm ji war nañ faa fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam. dëgg loolu mooy firnde na li nga wax dëgg la. kon nag ñu ngi lay nuyu di la sant <laughs> jërëjëf si doon bokk ñun jotaay ah, incha allah di ñaan yàlla tamit ah ñu yàlla dafa sutura amiin amiin amiin bàyyi xel la xel xëy dëgg la incha allah bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam incha allah Nabi TV TV 92 loolu moom. yàlla na ko yàlla yëkkati. amiin yaa rabbi amiin. mu nekk télé. amiin yaa rabbi. nekk lu am doole. amiin yaa rabbi. waaw te tamit tur yi am na doole lool. amiin si. damaa gunóor ko bil wirdi alladi nawamat. Hmm. yadu nubuwati. Hmm. ak yib naa bila saasi. est-ce que. imaamu Ibrahima. Ibrahima Raxay. waxoon ci yéen si si Cheikh na Tijaan yi est-ce que. tariqa bi. Hmm. ñu ko fondement yi ci. nubuwa gi waaye du yonent bi doon dox ci màgg. Hmm? fa maa zunoon ko bi wér di la di naan war yëddu nu bu wuti la. bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu wax nii ci Makka. nubu gi moom doon hmm. naa bilaa saasa. waaw kon nag loolu yàlla ñu si yàlla bi mooy lépp. wallahi ñu jégalu macha allah rafet na asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci leeral yu am solo yi nga xam ne tey indi woon na ko fii ci Naby TV 92 jaajëfal itam suñu caméraman yi ak suñu techniciens yi ñu àndaloon ak muy sëñ Mor Diallo muy sëñ Babacar ak mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen émission jàngat ci l'islam fii ci Naby TV 92 jox leen dig daje rek semaine bii di ñëw incha allah ci beneen tomb wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.